bi ñetti waxtu di jot le kii di directeur général 3FPT fonds de financement pour la formation professionnelle ex fi ci kër Serigne Touba bi nekk ci Allemagne ci fële sëda ak 40 km de Bremen liko ko nak moy mooy formation fi ci Allemagne waye mu ne mënul ñëw mukk Allemagne ba dellu Sénégal té ñëwul fi ci kër Serigne Touba bi ziyaara ko dam jom nak mi ngi and ak ki nga xamanteni bi moom mooy Sidi Gissé Diop bok ci daïra bi ak ki di Massaer Dieng bok ci daïra bi ak ku ñuy wax Lamine Ndong moom tamit bok ci daïra bi il parce que dedans y a une salle pour 200 personnes salle de fête de 200 personnes, il y a 11 chambres en haut il y avait une cuisine industrielle dedans donc moom il l'utilisait comme restaurant salle de fête après avec possibilité de dormir.

moom ci boppam participé na à l'ordre de quinze millions yoo xam ne dafa defu chèque ne nañ ma ko defal ci kër googu ci kër gii def na ci xaalis donc euh, bi mu ñëwee man sama oto la dugg ñu jógee aéroport Bremen jaar noonu mu ne fuñ jëm ma ne ko fiñ jëm nii sori na de génn dëkk bi tuuti mais ñun ñoo xaw a taamu génn dëkk bi parce que dañuy sikkër di tëgg di jàng di def loolu te comme tubaab yi xamaguñ ñu bu baax nañ leen xaw a dànd tuuti nekk ci côté bu gën a village pour bañ leen a yàqal ko mais lu ñuy def par exemple marche bi ñu ngi ko defee centre Bremen fa lañ jëm tey pour añañ donc sëñ Mourtada ne suuf sépp suufu si yàlla la fu ngeen ko am baax na kërug yàlla laa bëgg ngeen di jàngalee di fa jaamu yàlla fu ngeen ko am ci suufu Allemagne si wut leen ko fa ñëw laaj ñu prix bi ñu ne ko à peu près ay deux cent soixante quinze mille euros lañ koy kiyee mu ne loolu yomb na yàlla voilà daal ne sax de maanaam foofee ca al euh, ca Amérique bañ koy wut xawoon naa cee dugal sama kii fii dinaa ci jéem a barkeelu voilà biñ ñëwee ñu ñëw ne ko daal ñun jënduñu ko dañ ko duwee pour fête gi waaye da nga ñu koy xoolal boo ñu ko xoolalee yow boo ñu nee baax na rek yàlla dinañu ci dimbale ñu eggale ko loolu tax bi mu ñëwee fanaan fii man sama loxo bii la ja ñu jàll jaaruñu ci yoon central bi ci ginnaaw lañ jaar yéeg escalier bi dem ci néeg biñ ko yoon mu tëdd dallu ba pare bi mu jógee daal ne fii baax na fii baax naam jooju nag moo ñu jox positif ñu nekk ci ba léegi mu nekk suñu loxo waa eh, kii bi ñu moom ko daal maanaam léegi daal moom kër gi kër sëñ Touba la na ko sëñ Mourtala bëgg woon muy kërug lislaam boo xam ni dañ fee war di jàngale di fi jaamu yàlla bu bu sëñ Mour Mahmoud de ñëw fii lañ koy recevoir bu ñuy màggal fii lañ koy màggale bis yi diine yi yëpp fii lañ koy defe daal mooy kii bi nag encore à d'être ici aujourd'hui à Bremen pour visiter la maison de Sering Touba en Allemagne. C'est pour nous musulmans d'abord, mais pour nous aussi talibés, c'est une grande fierté de voir que le cheikh, de par son travail, de par son éducation, a une communauté qui s'intéresse à l'islam, qui s'intéresse à la vie et à l'œuvre de, de, de, Cheikh Ahmed Bamba. Euh, nous avons profité donc de ce séjour pour venir visiter cette maison, rendre visite à nos parents, à nos amis qui sont là, notamment notre frère Sidi Diop, notre neveu euh, Lamine Dong, euh, qui nous ont fait l'honneur de nous faire visiter la maison de Cheikh Bamba ici à Bremen. Mm. Euh, c'est un sentiment de satisfaction d'appartenir à un pays qui s'appelle le Sénégal, mais d'appartenir aussi à une confrérie qui s'appelle le mouridisme. Mm. Donc je rends encore grâce à, à, Allah le Tout-Puissant, à son prophète, mais aussi à Saint et Mme Cheikh Ibrahim On peut savoir le but de votre visite ici en Allemagne alors, je suis arrivé en Allemagne il y a exactement une semaine dans le cadre d'une formation que euh, les Nations Unies organisent. Vous savez que les Nations Unies ont compris que la formation professionnelle est un levier fondamental pour le développement de nos pays, mais pour aussi lutter contre le sous-emploi de nos jeunes. Donc, euh, les Nations Unies organisent à Bonn une formation internationale de Tibet Leadership, euh, c'est-à-dire leadership dans la formation professionnelle et technique. Et j'ai eu l'honneur d'être coopté dans cette formation. Euh, nous sommes une vingtaine de plusieurs nations à travers le monde sur qui les Nations Unies comptent pour défendre la, formation culturelle dans les mondes dans nos différents pays et dans nos différents continents. Donc c'est une formation qui se passe à Bonn et nous avons profité donc de ce week-end pour venir visiter la maison du chef ici à Bonn. Mhm. Et si vous avez un message à lancer aux Sénégalais, qu'est-ce que vous allez leur dire alors, c'est un message de, travail. Quand euh, on a l'occasion euh, de visiter des pays comme l'Allemagne aujourd'hui, qui se sont développés, je pense qu'il faut qu'on reconnaisse qu'au Sénégal, aujourd'hui, il y a d'importants pas qui sont en train d'être franchis sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan social il est important que les Sénégalais s'unissent autour de l'essentiel et de faire du travail une viatique pour tout le monde. Et il n'y a pas de secret que ces pays-là euh, où nous sommes aujourd'hui se sont développés. Ils se sont développés sur la base du travail et de la compétence. Il faut qu'on aille chercher la compétence, les connaissances et se mettre au travail pour le développement de notre pays. Vraiment, le message que je lance pour nous les Sénégalais, pour nous les Durbula particulièrement, c'est de nous unir autour de l'essentiel, d'aller chercher les compétences et de se mettre au travail et exclusivement au service de notre pays et de notre région. Je vous remercie, M. Damdiop. C'est moi qui vous remercie. voilà nous sommes d'accord avec M. Dame Diop directeur général 3FPT M. Damdiop, Diop êtes en Allemagne kër Serigne Touba ndax Oui, xam say euh, Sall ngi lay di Allemagne yaa Bremen ci kër Serigne Touba yàlla dafa dogal nag ñu ñëw fii formation ci dëkk bu wax Bonn ci Allemagne euh, ñu ne woon nag tey di samedi ak dimanche boo xam ne ñoo ko moom suñu bopp formation amul ñu ne kon nañ na wëri waa kër nekk euh, yàlla dogal ñu fekk fi suñu ay dëkkandoo suñu ay mbokk suñu ay suma xarit si Diop ak suma jarbaat Lamine Ndong nga xam ne ñoo dëkk fii ñoo ngi fii ci kër Serigne Touba ñu am mbégte lool ñëw fii ziare kër gi euh, gannaar bi nga xam ne ku tedd ki sëñ Mamor jóge na fi fan yi donc mbégte lañ ci am lool delluwaat rek xam ne sëñ Tuubaa moom kenn xamul lan la waaye ku ñëw fii ñëw ci dëkk bi vraiment ni mu soree ci biir Allemagne ñëw fii ci gox bi mhm. fekk fi euh, kër gi nga xam ni moom taalibe yi mbokk taalibe yi dajale ba def ko fi ñu dellu sant sëñ Touba gën gën ko santaat ci ci taxawaayam ci ci ci askan wi taxawaayam ci diine islam ci àddina bi donc am nañ mbégte lool fekk ñëw tey ziare fii ci kër bi euh, di di di am kontante bu fekkee ko euh, bi ngeen def si boon ndax mën nañ xam nañ la waaw xam nga euh, man dama yëngu ci wàllu formation Nations Unies dañuy jàpp ne formation professionnelle mooy li nga xam ne moo mën a génne dëkk yu bëri yu am tey

ci ci continent yi ñu nekk ñu gën fa ñaax euh, ñi nga xam ne ñoo yor politique politique publique yi. pour que ñu gën a fulaal formation professionnelle parce que mooy li nga xam ni moo mën a xeex wàllu xëyum xëyu ndaw mi. donc euh, loolu moo ñu fi indi woon ñu war fi def fukki fan. Euh, bokk formation bi ak xeet bu ne. Hmm. am na ñu jógee Chine am ñu jógee. ñu jóge Canada am ñu jóge Afrique def na ñun ñent lañ ci. euh ñëw fi bokk ci formation bi am ñun dëkk yeneen de continent yépp représenté wu. donc formation bu mo ñu indi fi tay ci Allemagne. euh muy formation bu am solo Dame Diop yow it aussi xam nañ né kilifa nga fële ci Sénégal gis nañ ne Sénégal temps yi ciow di bari na trop pour naka nga gisee politique bi fofu au niveau du Sénégal. xam nga so so yeggee dox ñëw ci dëkk yu melni fi da ngay xam né liggéey rek mo woor te Sénégal wax dëgg yàlla wax ji bëri na dan naa ko wax bi may dugg ci politique soo wax ne politique baax na euh, ndax politique du dara lu defar sa gox waaye nag bu politique jotee dañoo war a taxaw ñu politique su politique weesoo ñu dellu ci liggéey wax ji bëri na ci Sénégal euh, mais damay jàpp rek ne wax moom defarul dara jëf mooy defar dara te boo ñëwee ci dëkk yu mel nii nga gis tey fi ñu toll ci wàllu développement nga xam ne du lenn lu ko waral lu dul liggéey donc jàpp naa ne Sénégal tey lu ñu mën a wax politique Sénégal mi ngi dox lu ñu ci mën a wax opposition yi nag seen rôle la ñuy def maanaam taxaw opposé waaye dañu war a def opposition bu objective maanaam lu dox nga wax ko lu doxul nga wax ko mën a opposé wu rek wax ne dara doxul tey bu ñu waxee dëgg rek seet Sénégal def na ay jéego yu am solo te ñi ko wax ñi ko wax mooy ñi nga xam ne ñooy saytu économie ci monde bi yëpp donc nañu wàññi wax ji dellu ci liggéey ki fi nekk ki fi yàlla teg tey muy président Macky sal nañ ko gunge ci liggéey bu am solo bi nga xam ne moom lay def mais euh, wax daal gëm naa ne euh, defarul dara nañu wàññi wax ji dellu ci liggéey gën liggéey def naa loolu la sot Sénégal soxla tey mhm. euh, lan ngay dénk askanu Sénégal

di jëmale réew kanam. loolu lañu suñu sëriñ bi suñu suñu sëriñ bu tedd bi sëñ Tuubaa dénkoon suñu suñu sëriñ maam Cheikh Ibrahima Fall. dellu ci liggéey. wax dëgg yàlla sàkku xam-xam. dem ba gannaaw Chine ni nga ko waxee pour sàkk xam-xam. mais aussi nangoo liggéey. Euh, jaamu yàlla. nangoo ak dellu te gëm naa ne ku nekk ku jaamu yàlla. liggéey ci jaamu yàlla

jugee aussi carte quartier question bi <laughs> monsieur Sidy Diop tey recevoir nga directeur général fonds de formation professionnelle ndax mën nañu xam sa impression. ah c'est bien parce que il fallait que ñu won ko tam li ñuy yëngu fii parce que li ñuy yëngu naturellement suñ liggéey bi beneen bi mi fi mais liggéeyal sëñ Touba dafa jiitu ci liggéey bu ne donc euh, képp ku nekk Sénégal normalement liggéeyal sëñ Touba dafa war a nekk sa titre. war a nekk li nga xam ne looy def da ko caa war a jiital. parce que jiital ko ci mooy dimbale askanu Sénégal mooy dimbale Afrique mooy dimbale àdduna sépp loolu moom. maanaam nit ñee wax rek mais du loo xam ne dafa méngoowul sax ak ñoom seen liggéey dafa ànd ak seen liggéey parce que ku ñëw ñuy tudd maam Cheikh Ibra Fall nga yor enseignement professionnel wala financement mbirum professionnel ñu la tuddee maam Cheikh Ibra daanaka wax nga wax nañ la lépp mooy jëf liggéey ba pare xam ni ngay jëfe te maam Cheikh dafa xamoon ni muy jëfe ñëpp xam nañ ko maam Cheikh dafa bay woon ba ñëwee bañ ko yebalee fële da dafa bay woon di bay di jàngale mbay di di di di wane ni ñuy liggéey ah liggéey yépp tëm yi nga xam ne ñoo ŋànk Sénégal mën a avancé loolu Sénégal nekkoon ci suñu yoon wi ah boo demoon Touba wala Njaaréem bi ñu jóge mm. daanaka lépp nga fa woon ba fa sëñ bi jógee la Njaaréem mel ne luy xaw a suux mm. hmm. ah. mais ba fa ba ba fa sëñ bi nekkee dégg naa juif yi sax dañ faa ñëw SIB ñi ko doon diriger ay juif lañ ah te xam nga juif moom du dem fu dara. léegi voilà ba fa sëñ Tuubaa nekk ñëpp dañ faa ñëw ñëw di fa développé dafa def fa SIB fekk si fa SIB di liggéey si foofu ñëpp nekk fa nag ñiy ëw ñiy daaj ñiy kii lépp dafa nekk ci yoon wi lépp suñ sëñ bi boole leen muy li nga xam ni aw yoonu développement la te ñoom buñ fi jaaree que muy ñiy politique ñiy politikul ak ñeneen ñëpp ñu xool loolu xool njariñ yi rek. njariñ yooyu buñ ko toppee dinañ yëkkati Sénégal dinañ yëkkati Afrique dinañ yëkkati képp ku bëgg lu baax. looloo tax ñun c'était important pour ñun ñu wan ko lii. egg fi yàlla di mu dimbali ñu ubbi mu gis li nga xam ni ay gars yee koy def nag. xoslu kat waaw ni ko Seex Ibra daan waxee ñàkk teet ñàkk teet lu waay jëf yaa ko moom slogan Seex Ibra moom aare ki moom dafa slogan productif la voilà voilà moom awul waxu Seex moom fii yam voilà yam fii yam ndax moom lu mu masaan wax lu day doon loo xam ni si booy laal di gis voilà waaw ndax bu muy wax buñ demee yowmal xiyam ba yàlla fay wax bàyyi jëf xam nga ne ko ñiy wax war nañoo noppi te voilà 40 ans mu mouridisme itam. Ah. li nga xam ne moom la ci doon jëf dafa amul maanaam kenn ku ko ci jëf. man day li nga xamee ni si sama baay bi nga xam ne moom moo ma jur li mu daan wax. Hmm. ne benn exemplaire la xamoon ci àdduna boo xam ne si maanaam dafa doon référence bu doy mooy Cheikh Ibra. moom sama baay bi mu jur Baldemba Dieng. voilà loolu daan wax. ndax euh, Cheikh Ibra. ay mbiram dafa bokkul ak ñenn ñu daan ñëw di xoolee sëñ bi nga xam ne curiosité leen fa indi wala lenn. moom ba muy dikk dafa dikk ak conviction ak xam-xam. ndax xam-xam ak gëm-gëm dafa bokkul Cheikh Ibra dafa xamoon sëñ bi doog ko ñëw. Ah. ñenn ñi nag dañ daan wax ne gëm nañ ko te euh, li ñuy wax euh, croyance nekk l'ignorance. waaw ah. ki nga xam ne dañ ne dama gëm lii dama ko xam. Ah. ki nga xam ne dafa xam moom. bokoy wax dama ko gëm mooy ah dama dépassé yoy parce que dama xam ni waaw loolu la Cheikh Ibra rawee góor ñëpp. ginnaaw waxtaan bu am solo wowo nak directeur général 3FPT fonds de financement pour la formation professionnelle gërëm na sante communauté sénégalaise na fédération daayira allemande bi nek fi ci Allemagne di sàkku ci ñom ñaan ci noonu nak lañu ñu jëlewaate oto yi téggu ci yoon bi wuti Bremen فلا إله إلا الله لا إله